asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme ça su ne ni ngeen koy defee ànd ak ñun seen dundin ak seen nekkin choisir la chaîne leader chaîne askan wi Dakar People saa su nuñ koy defee di ànd ak yéen di siiwal di feeñal ak a woyle boroom xam-xam fépp fu mun nekk ci biir réew mi te nag amal nañ contentement ak mbégte beneen yoon dalal kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi ñu gën ko xam ci sëriñ bay Diop sëriñ bay jóob nuyu nañ la. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa àdduna yëpp suñ àdduna mooy dañoo am yëg bu rëy ah, ñu toll tey àdduna yi fa nga koy seetaan kon suñu nuyoo bi jëlañ ko teg ko ci loxo yi képp koo xam ne si mbindeef nga rek rawatina ñu mbokk jullit di leen wax ne yàlla na yàlla def nuyoo bi fekk nañ ci jàmm. barke nabi sallallahu salaamaaleykum wa rahmatullah lay fay Serigne Baye Diop tey nag ñu seet la pour am yow waxtaan laaj ak tontu waxtaanee xam waxtaanee pàcc yu bëri ci mbiru xam waaye tamit waxtaanee jafe yi nga xam ne jaamu yàlla yi dañ koy faral di jànkonteel te saa su bu nekkee gàllankoor si ñoom seen xel du jug mukk si jëmm yu mel ni Serigne Baye Diop pour mu saafara ko te Serigne Baye Diop daanaka nekk benn jëmm bi nga xam ne ni mësoo farataal sax daanaka bëgg di génn ci. si si internet bi ak réseau yi yu mel yu ni mel càgge ni sax tey jii daanaka lu waral ñun ñëw sabab tey jii suñu ñëw fii tey jii nga ñëw daanaka may ñu opportunité pour ñu am ak yow waxtaan te loolu dara du ko waral lu dul faj saafara jaamu yàlla yi sëñ Mbaye nuyu waat nañ la beneen yoon di la laat fii sa chaîne Dakar People lan moo sabab tey jii nii ñàkk bëgg a génn ci réseau yi ak yu ni mel lu tax loolu sëriñ bay Diop. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi ki ñuy seetaan ak ki ñuy déglu ndax am na koo xam ne xëy na mën nay dégg te du gis am na koo xam ne mën nay gis te du dégg di wax ne lii sabab li it mm, luñ gàntu woon la te gàntu gi tamit mooy jox cër xam-xam ndax lu tax mooy dañuy wax ne duñ bëgg kenn ci àdduna di oyofal xam-xam te ñun xam-xam rek lañ am ci loo xam ne si moom lañ gëm ne lu ñu war a teral la moom lañu gëm ne moom lañu war a màggal kon su fekkee ne loolu am na tey bëri ñoo xam ne soo feeñee ci yenn yi dañ dëkkal foo xam ne dëkkoo fa nga làng ko toog ndax olof day wax ne la bëy xar doon dundee wala bëy ba màgg ci ba am sikkin dañuy wax ne yaakaar na ne suñu borom mën na ko caa may loo xam ne ci lay màggat tey ku dund ñaar fukki at fanweeri at ñeent fukki at génnut këram te lu mu bëgg a def suñu borom di ko ci dimbale mu koy def damay wax ne su ko neexee te mu continuer ca loola waaye daa am yoo xam ne si dañuy wax ne su fekkee amul yow boo dee yàlla da loxo ko laaj bëri na koo xam ne tey damay wax ne am na soxla xamul fu jëm tey yàlla def lam soxla mu ngi mel ne tànk ndox naan ci yow ci yàlla boo ko yaakaaree ci yàlla ba ñaan ko yàlla kon kooka nga dem génn pour wan ko ne yoon waa ngi nii du moom ngay liggéey liggéeyal jëm yàlla ji ngay liggéeyal su la fayee sunu borom fay la bu lu fay sunu borom dana la fay kon génn gi tax nit ñi ñenn ñi sabablu ko ñenn ñi sonn si ñaan ko ñu mayee ko lii moo tax ñu nangu pour dimbalante ak jaamu yàlla yi ci li ñu yàlla dénk ndax ni ku nekk daa am lu la yàlla dénk am lu mu la xañ tey oto bii moo ko taaloon tey di génn damay wax ne su paanee mécanicien lay woo su ma soxlaa gasoil damay dem station kon yàlla jëlul lépp teg ko ci loxo nit kon nit ki itam li la yàlla dénk rek dimbali ci jaamu yàlla yi loolu daal incha allah moo waral tey ñu nangu yenn yi mooy nangu fexe déggante gi yéen ci ngeen ñëw ñu wasaare li nga xam ne si yàlla dénk na ko ñu bokk ko ku ci sa muur nekk incha allahu taala dañ ci jot ba soobee macha allah Serigne Mbaye Diop leeral yi am na solo trop daanaka bu ñu paree ci loolu bëgg nañ dëgmal waxtaan bi comme ni ma ko waxee waxtaanee xam-xam waxtaanee tamit jafe-jafe yi nga xam ne jaamu yàlla yi dañ koy faral di jànkonteel te saa su ne su nekkee gàllankoor si ñoom seen xel du jug mukk si jëmm ju mel ni Serigne Mbaye Diop pour suñu borom saafaral leen ko Serigne bi tey suñu question bu njëkk rek bëggoon naa ñu amal ko ci wàllu cumukaay ndaxte dañ koy faral di dégg loolu cumukaay cumukaay tey jii sëñ bay Diop lan nga ñu mun a indil ci leeral ci wàllu cumukaay. waaw yaa ngi wax loo xam ne si damay wax ne mooy dimbali ab ñaankat damay wax ne ñaanlukat bu muusoon du dem rek ne nit ki ñaanal mu mel ni ku naan am jaay ma tàngal mu ne am ma jaay la nga dem sa yoon waaye sax ci sëriñ dafay dimbali ñaanlukat bi waaye sëriñ bi lay sonal tey soo defee sëriñ bi si sumikaay moom xam ne ne mënut du def du dindi yàlla mooy kiy def waaye damay wax ne tey yow mii su fekkoon ne damaa jóg man danaa taal caméra bii. damay ne lu lu ma gis nga olof day wax ne bul gis nit ki man oto bay dawale benn loxo tax nga ne oto daa yomb kon bul jàpp tamit ne ñaan yomb na wala damay taxoon allahuma nit ki tey ki nga xam ne si itteem yëpp da ko def ci tudd yàlla ko def ci jaamu yàlla itteem yëpp da ko def ci ay naafila kooku mu ñaan yàlla yàlla wuy si ko mu gën a yomb ki xam ne si ci safaan ba la nekk nga jël nag sa bopp ne ko ah man ka dënk naa la sa bopp ci ñaan dénk moom yàlla danañ koy def waaye dénk naa la sa bopp ci ñaan kooku dafay dimbale ñaankat bi ndax lan mooy dootu seetaan ci sa mbir dara du xaarati nga koy wax saa su ne itam mu ngi ciy gëstu ak a xool lan la ci war a def ak lan lañ ci war a dindi waaye fekkee ne da ñëw rek dégg ni nangam da nga ñëw ne defal ma nangam mu defal la pare na ci bu subaa nga amaat benn kooku dañuy wax ne ñaankat bi sax daf ko arrangé ndax doo ko sonal saa boo ñëwee mu a lii nga may jox nga jox ko loolu nga dem waaye kii dénkaane boppam ci ñaan def ut ba cummikaay ne fii mooy sama cummikaay waaye nag cummikaay dafa am loo xam ne sii moom la laaj du ñoo ko mën a am ndax boo ko bëggee ci nikki dana am ay sart yoo xam ne si moom la laaj ñu defal la loola am lu ci jiitu am loo xam ne si ay sarax la yu am doole yoo xam ne si nag su xasee passé da ngay xam ne lépp looy nekkati di ko yëngatu nit ki dana tëdd sax yàlla wan ko ci sa mbir loo xam ne yow sa bopp doo ko defee da ngay rek dégg ne ah man de kon li taxoon sëñ bi dama nangam moo tax cumikaay baax soo déggee mbëri di ko wax baat bi léegi la bëri ku nee naa sama cumikaay waaye ku ñu néew ñoo ko daan wax mooy buur yi ak ñi nga xam ne si ay kilifa yu mag lañ nga xam ne si dafa am dañoo amoon cër bu mag boo xam ni nii dañ leen daan bàyyi xel ñoom ñoo doon tax ñu wax ne fii mooy sa muccumikaay loolu mooy muccumikaay. macha allah Serigne Baye Diop leer li am na solo trop macha allah daanaka bu ñu paree ci loolu sëriñ bi comme ni ma ko waxee sànq mbokki askan wi mbokki biir ak biti réew daanaka dañu am ay yóbbante yoo xam ne dañ ma ko dañ ma ko yóbbante si yow mu nekk ay maanaa yoo xam ne da ko da ko askanalee sa bopp te ñu bëri biir ak biti réew ñu xàmmee la ci ràññee la ci lool lool mu nekk ay kéemtaan yu am am solo. tey ma bëggoon nga indil ma ci ay leeral bi si njëkk rek sëriñ bi bëggoon naa nga ñëwal ma ci njuru semmiñ bi nga xam ne tey jii ñu ngi koy askanale sëriñ bay Diop loolu mbir moomu ana lan mooy maanaam bi lan la làmboo sëriñ bay Diop. waaw sëriñ Maxtaar dafa am yoo xam ne sax damay wax ne dama damay bàyyi ba ku ñëwut ba ñam ci doo xam lu muy jariñ ndax xam nga lu mooy njur njuuru semmiñ bi liñ ciy liggéey dafa bari ndax dañ ciy liggéey mbirum boole njaboot nga xam ne ni ngi tënkee yëf dugal ko fii nii noonu ngay tënk sa njaboot ci sa bopp nga xam ne si kenn du ko a xaj jëmale ko fi bokk dafa nga bëgg wala ñu nangu ko ci say loxo di ko def looloo xam ne yow soo soxlaa ci ñoom la loolu dañ koy liggéey njur bi dañ ciy liggéey tamit loo xam ne si mbiru cat la nga xam ne comme ku cat jàpp solon ko lool ñu liggéeyal ko ci mbir moo xam ne fii lañ koy sol génne ko damay wax ne ñu fi jot ñëw dem ci wana wi sangu fa damay wax ñoom duñu laajte lii ndax xam nañ ko ndax ñam nañ xam nañ itam lam jariñ te bari na ku ñuy woo ne ñu diwuñu boole nee na nga defal ñu càngat bi ñuy def ci njuru seen yi kooku kon xam na la ca njuuru seen biir da xam ne léeg-léeg mu ma waxaan ma ne ah am nay mbir yoo xam ne sax de su ma sañoon ku ñëwut fii doo xam ne muy jariñ da ngay bàyyi ba ngay ñëm ñam wala mu jaral la ko doon kilifa ñu xam ne kii kat ñun bëgguñu àdduna xam ne mu ngi fi ñëw mu déplacé ñu ñu dem këram toog liggéeyal ko ñu koy liggéeyal rocceekuwaat ndànk ñëw ndax itam nit ki soo koy dimbale da koy dimbale ca lam sonne ndax di dimbale kilifa déplacé ko ñëpp naan diw ca diw la jëm loolu tamit rafetul moo tax léeg-léeg it ñu nangul ko yenn kilifa yi déplacé dem ci seen kër yi dimbale leen te yàlla tax bu ñu paree waññeeku waan ndànk ñëw ndax moo gën ngay wane kilifa gi ñëpp naan diw diwee sëriñam wala fii mu ci mikaayam loolu tamit du cër waaye njur mi daal li ñu liggéey damay wax ne ku yàlla def ba nga ñam ko yaay woo sa morom ne ko utal lii waaye dañu ñoo la koy waxaat loolu laa ci mën a wax. macha allah Serigne Mbaye daanaka mbiru semmiñ bi moo nekk noonu ki ko jëfandikoo rek moo la mën a wax tey jii maanaa yi ak njëriñ ba ne ci biir mais Serigne bi xam naa ni tamit dañuy kon tuuti ci sémmiñ bi parce que tamit sémmiñ bi dafa mel ni dafa am lu dafa am benn lien bu xaw a particulier am ay maanaa yu ama am solo bu ñu paree ci mbiru njuru sémmiñ bi bëgg naa nga ñëw tuuti ci ci weñ bi tamit weñu sémmiñ bi. waaw weñ bi weñ bi damay faral di wax ne weñu sémmiñ rek moom moo mën a génn yëgut buur yëgut buur boo ko déggee tey damay wax ne su yàlla defoon tey buur taxaw fee law bi di gor bant su ne càtt ne waat càtt su bant yi tëbee moo xam buur nga moo xam président nga moo xam baadool nga moom xoolu la fu ko neex lay dal mënoo ko mënoo koo tegg moom amul ruus naa diw lii itam noonu la mel su la nit jógalee ci lu du noonu moo xam ci pexe yi bon na moo xam ci liggéey bu bon la moo xam ci bëgg laa yàqal maanaam ñu liggéeyal la ci li ñu lay liggéeyal fu mu ko fekk tamit moom lu mën a doon mënu koo të ndax amut ku am fitu damay wax ne semin jóg mooy ne fif te daw liñ ci liggéey tamit dañuy wax ne bu xasee jóg kenn mënu ko téye moo tax dañ ci liggéey mbiri kaaraange yoo xam ne damay wax ne maanaam ku yàlla def nga nekkoon ci koo xam ne dañ lay tëkku wala nga ne foo xam ne si dañu faa pexeel ba nga tiit nga ñëw ba def bañ defal la ba liggéey la dañ ko yóbbante nag ba bitim réew fu ne dañ ko yóbbante ndax bu ko nit ki itiwoo dañ koy liggéey di ko defar ba mu rafet yóbbante ko mu dem waaye képp koo xam ne si nekk nga amoon ci barab sax mu am benn taxawaay bu mu taxawee bëgg laa yàqal sa place damay wax ne yow da nga da nga da nga dem ba yow ree ko surtout nag kilifa yi nga xam ne yàlla dafa leen jox place yu mag nga xam ne tey damay xam ne képp koo xam ne si tey yaa ngi ci place defarul préparé sa bopp ndax lu sax bët bu set nit ñaa ngi préparé wu di bind ay demande di wut ay emploi ne dama bëgg a dem liggéey place sàngam te fa ñuy ñaani liggéey am na ko fa nekk kon seen pexe mooy nga jógee fa ñu ñëw kon yow ma fa nekk nag ndegam ñoom ñoo fa nekk du la jaral benn na la jaral fukk loola nag moo tax léeg su nit nee ci place yooyu noonu suñu sante liggéey ñu koy liggéeyal lii ndax mu doon pëli pëng maanaam lu nit ñi jóg-jóg ndax ku ku ñëpp taf li tam bu yàggee nga tooy moo tax nit ki nag bu am na fu muy toll defar ko war loolu daal mooy li nga xam ne ci gàllaa ji mag ñi ku la ku la dee waaye daal am na fi waaw xam naa ni ci yóbbante yooyu rek tamit dinaa ci feneal beneen mbir muy tamit coowal këll bi sëñ Mbaye Diop tamit yobbante nañ ma lool lool insister surtout tamit mbokk yi dañuy insister ci wàllu këll bi galaaju këll bi sëriñ bi indil ñu ci ay leeral dafa doon këll boo xam ne damay wax ne liggéeyu cosaan la ndax këll bi tey maanaam kenn du dem rek jënd ko ndax dafa am këll yoo xam ne mën ngaa dem jënd ko am këll yoo xam ne yow yaa koy commande ki koy liggéey da koy xam am na këll yoo xam ne soo koy soo koy liggéeyloo ki koy yat dañuy wax ne yaayam aawa doon aawa boo xam ne baay mu ngi dund yaay mi ngi dund te mës a fay maanaam foog nga xam ñooñu foog mu doon ñoo xam ne ay dëkkandoo cosaan lañ aawa boo xam ne yaay mi ngi dund baay mu ngi dund te mës a fay doomam mooy ko yet su fekkee yett na ko pare tam cang di nga ciy def am na ñaari cang di nga ciy def benn bi da nga koy dëpp nga taxaw ci benn bi ci des mën nga ko sangoo ni ci biir am na ci bëri nag loo xam ne li ci ëpp ci àll ba la ñuy dem sangoo ji ko fa suñ ko fa sangoo ah damay wax ne li ci ëpp nag mooy nit koo xam ne dem na ba yaakaar ne mbiram yàqu na newoon na ci mbir lu mu nekk bañ na noonu la rek mu commencé wat zéro lu mu téye bañ na noon la tamit mu mel ni mosu yor dara bu yoree alal lu mu bëri bëri day jékki-jékki naan yoroon naa fi nangam yoroon naa fi nangam mënoon naa ci def nangam tey su xëyee day toog rek ba xam fu xaalis bi jaar loolu nag moo tax su àggee foofa noonu ci maxam moom ma su ñëwee nag foog ñu dugg moom ci ruqu defal ko këli bi liggéeyal ko ci su ko defee nañ koy dëppee mu taxaw ca kaw ah incha allah gisuma luy taxati luy teeyati mbiram du dem kaw ci kàttanu yàlla. macha allah Serigne Mbaye Diop leer li am na solo trop suñu paree ci loolu Serigne bay Diop daanaka dañuy gis ni dafa am yenn càngat yoo xam ne ni day nécessité maanaam day laaj nga dem ci àll pour ama amal fa càngat yooyu noonu lu waral loolu sëriñ bi. waaw xam nga lépp lu ñuy liggéey ñun daf ci am loo xam ne xam-xam damay xam ne ñun këree wuñ ci dara lii dañoo ñëw fekk suñu maam lii ñoo sol suñuy dàll dem tarbi ju ko ci àll bi lii ñaar fukki at lii ñeent fukki at lii juróom fukki at ñoo xam su yàlla defee nag ñu ut loolu noonu at yooyu yëpp ñu liggéey ko wër ko uti ko xam-xam toog suñ ñëwee am na loo xam ne damay xam ne soo bëggee dimbalante ak jàmm bi am na mbir fu xam ne bu fa àggee lépp lu mu def ko nit su mbiram àggee fenn fi il faut mu jar nag ñun ñu jóg dama moom ci àll bi dugg ci ngeer yi wala ñu yéeg ci garab bi lu mu laaj danañ ko def ndax boo dimbalee jaam yàlla ci leen yàlla dénk yàlla moom moo lay fayal boppam jaam bi nag dama wax ne mënul dara ñaankat bi bu li muy def li sama maam daa naan li ngay def bu mel ne ni tànk ndox naan bul ci gis sa bopp bul ci naagu yàlla la rek moom la neex ndax su ko neexoon boo nelawee doo yeewu waaye nag nit ki sant sañ naa sant yàlla ci li ko yàlla may loolu la. macha allah Serigne kaddu yi am na solo trop leeral yi am na solo trop macha allah mais daanaka bu ñu paree ci loolu bëgg naa tuuti ñu ñëwaat ci coowal tengse bi ak socc bi daanaka ñu bëri sax ñu ngi la koy commencé askanalee ñëw laatal ñu indil si ay leeral mbaxte daanaka am na ay maanaa yu xam ne tengse bi ak socc bi dañ ko lamboo yu ama am solo macha allah. waaw mbiru tengse bi de ak euh, mbiru socc bi ngay gis da nga wax ne lu lu rëy la toog naa bu yàgg sax ma ne de su ma yëgoon damay ban meloon rek ku yàlla xéewalal nga rocceeku ba xam ko ma liggéeyal ko ndax lu sax mooy ñi ko jot a ñam te xam ko su ma mën ñoo wax seeni xarit ak seeni morom léeg-léeg nit moom ma ne ma diw ñu boole ci tënks bi wala diw ñu boole ci socc bi ndax lu sax mooy socc bi damay ne gàllaajam dafa doon dafa doy ci gàllaaj ndax jamono ji bëri na kuy dund nit a lay xaar ci ree la sa noon mu ngi lay xaar ci nga yàqule ba mu kontaan mi ngi xaar fexeel la pour sa mbir yàqu socc bi ne dafa xam ne ku yàlla dénk nga téye ko di ko jëfandikoo xaw ma kan waaye noonu moom du la ree ndax lu tax mooy képp koo xam ne pare na laa ree moom yàlla dana ko may lu ko doy moom ba dootu la la ree waaye nag damay wax ne mbir mu nekk daal nañ ko jox ko ko yellool teg si bi moom damay wax ne léeg bu ñu waxee ma ne leen du ku ne laa koy jox ndax dafa doon gàllay goo xam ne ku mën a defar àdduna la waaye lu mën a yàq lu bëri la ndax tey dem na ba ci tey nit tooñ la kuñ tooñ laa wax nag nga nekk ak moom mu wóor na kii tooñ na ma damay wax ne pour nga xeex ak moom ci tënk bi dafa yomb jëflante moom ci tënk si bi mu xëy mel nu uuteeg na meloon wala mu xëy di dund lu uuteeg la mu doon dund wala mu xëy am leneen lu muy yëg lu bokkul la doon yëg loolu tënk si bi rek moom moo ko moo tax ñaaree damay wax ne képp koo xam ne sax kilifa nga ci ci ci barab ba nga nekk moo xam chef entreprise moo xam njiital commune nga moo xam jiital leneen nga waaye borom garaat nga ci li nga nekk damay wax ne yàlla dénkee nga am tënk bi dana bëri ko topp sa naa bëggoon laa fa kastal ba muy daan dem balaf moo xam day xëy ñaan ñu déplacé ko wala dañ koy xëy déplacé ko si lu ko neexut waaye teng si moom feeg yaa ngi koy jëfandikoo comme ni ñu koy digale bu boobaa bul tiit ci sa ji la wër dara ci kàttanu yàlla ndax tang si tey su ma ko dóoroon ci miir bi nii damay wax su wàññi koo ci man la jëm si su ma dooree bu baax su dalee ci man bu baax lay dal su ma dóoree ndànk noonu la képp kuy jëf ci wit ne jëf lu baax su jëfee leneen loolu lu mu gis moom moo ko def yoo tuddoo kenn laaloo kenn loolu mooy doole tënk si bi. macha allah Serigne bay Diop leer li am na solo trop yaakaar naa ni loolu moo nekkoon coowal tënk si bi ak socc bi nekk na ay maanaa yu am solo comme ni ma koy waxee yaakaar naa mbir ku bëgg xam njëriñ bi day fekk nga jëfandikoo ku ko jëfandikoo rek moo la mën a wax na yaakaar naka la mbir yooyu làmboo mais Serigne bi bu ñu paree ci loolu balaa ñoo tàggatoog yow bëgg naa tuuti nga ñëwal ma ci wàllu takk ak sëf ndaxte jamono yi ñu toll dañuy faral di ko dégg lool lool Serigne Mbaye Diop la moo dox sa diggante bi rek takk ak sëf. waaw xam nga takk ak sëf ñaari dañ cee yab sama mbokk yi nga xam ne ay pël lañ moo tax bi ñuy ut xam-xam yi ni mu jaral ñu ñu jar ñu jër suñu temps lu yàgg mën naa ne ñun ay pël yu gàllale ndax suñu yaay sant waaye dañ cee def suñu temps lu yàgg ci tarbiyu ko maa ngi nettali benn bis ne am na sama génn góor ba ma fa demee def naa fa ñeenti fan ba ma ñëwee mu ne ma xam-xam de ñaar ñuqi wala nga ñaq rek man ne ko man de indiwu ma ñuqi sama doole nag indi naa ko ma def fa ñeenti fan di ko buddi ñaam bi di boros di daj lu ne bañ paree la may jox mu jox ma ko ne ma su la nag ñu toog fii nga essayé li lay wax bala ngaa jóge fii pour nga xam ne mbir mu nekk rek soo ci jaaree fa nga war a jaar foog yàlla def ci barke mu doon loo xam ne nag damay wax ne ah, ku ne mën na ko takkee te takk dafa am loo xam ne moom daf koy laaj ndax nit ki boo koy takk mu ñuul boo ko takk ki nga takk mu xees ki nga takk mu xeereer boo ko takk ki nga takk mu ñuul kenn ku ci nekk am na loo xam ne léegi ci wëñ daf koy laaj xànc yi sax day uute ba ci ataa caas yi ñu koy takkee am na ñoo xam ne caasu golo seen sit yi dañ takkee am ñoo xam ne genn fas lañ koy takkee am na ñoo xam ne xànc ngi gis gu ne ci armée lañ koy takkee ñii xànc gi féetee càmmoñ ñii xànc gi féetee ndeyjoor xam nga loolu nag bu fekkee a ah, dangaa ñu jàng la takk te la takk làmboo yëpp seetuloo ko mën na yoo xam ne mën nga takk ba pare te la nga ci bëgg doo ko am la ci toppatit mën nga takk nit te ki nga takk ëpp doole ki nga ki koy takkal loolu itam war nga koo xam yow mi ngi takk soo xamee loolu dana tax boo takkee takk gi dana loo xam ne takk gi jàpp na ndax takk boo ko takkee ba pare ci nga sànni ko ci kaw miir mu jàpp ci miir bi takk gi dana la ne bala maa départ ne kii may takkal takkam gi jàpp na su fekkee jàpp boo ko sànnee ci miir bi day wàccaat nga xam ne kon kii jàppagul nga nekk ci ak nekk ci ak waaye nag loolu dafa am mbir yoo xam ne bala nga ca egg ak nit dafay fekk mu jar ko wax du nit du jóg rek ne takkal ma nit parce que nangam dama faa bëgg a dem sama ndaw la wala takkal ma nit parce que maa bëgg mu may ma nangam déedéet maanaam dafa am luy jar takk tax nga takk ndax nit ki tamit booy def dara da nga ci sóor yàlla da am njaboot yi itam kon seetal li nga xam ne mën ta ñàkk ba tax ngay takk nga doog a takk moo tax takk itam du ku ne lañ koy defal comme ni ma ko waxoon ci ci ci kii bee rek incha allah. macha bay Serigne Mbaye waxtaan bi am na solo trop macha allah leeral yi am na solo trop. mais daanaka mun naa ne ñu ngi ci cappaandaw émission bi waxtu nekk na li nga xam ne xaw na la tënk lool lool lool xam naa du ñu def lu dul ñëw bàyyi la tàggatoo ak suñu mbokki internet yi Serigne Mbaye Diop lan ngay tàggatoo an lan ngay dénk askan wi. waaw li may tàggatoo de mooy di sant yàlla ci suñuy jëflante bu rafet ak ñi nga xam ne yàlla dafa nekkuñu fi ndax wax dëgg liggéeyal ko fi nekku dafa metti te yaakaar yi dafa rëy ndax li may wax nit ki romb téeméeri kër ay borom kër romb ay kilifa romb ku ne ñëw ne yaa ma doy ci nangam loolu damay wax ne aw sas la kon bu la ci yàlla dimbalee nga góorgóor di ko jéem matal am ci pasteefu liggéeyal ko àmbale ko defal ko ba mu rafet yónnee ko ko ah damay wax ne santal yàlla yu itam ndax bëri na koo xam ne daan la woo tey jooytu ne man de yónnee woon naa nangam wax dëgg yàlla def nag am na ñoo xam ne damay wax ne Sénégal ku teg mbiri ci yoon ñëpp mën a ñaan buñ ko tegee ci yoon damay ne kuy woote na sëriñ rek sëriñ tëbër rek dem doon doon lu sëriñ waaye nag teg ko ci yoon gi moo jafe am na ñoo xam ne tey Sénégal da wax ne donte juróomi at lañ am bu ñu la téyelee liggéey bu ñu la liggéeyee soxal sedd ndax la ñuy def fonk nañ ko fonk nañ seen bopp ndax ñuy xool fi ñu bokk di xool fi ñu bàyyee ko kon dañu res maanaam jëflante ak yow ci loo xam ne bu ëllëgee xeebel dana am sa diggante ñoom loolu nag damay wax ne su fekkee nit ki nag day taxaw di wax àdduna yëpp di ko dégg muy xalaat ni ku ma xamul may dégg sama doom may dégg sama soxnaam may dégg samay papaam may dégg dana wax loo xam ne ëllëg du rus bu jàkkaaru ñoom waaye wax loo xam ne bu ëllëgee yow mi koy wax boo leen xoolee sëgg mbaa bu ñu koy nettali nga bëgg ne ah man de waru ma woon waxee lii damay wax ne loolu nit war na koy seetaat ñuy ñaanal képp ko xam ne yàlla def ne yaa ngi ci biti wala ku yore njaboot yàlla def ñu am féewaloo wala ngay liggéey teg la ci place ñu ñaanal ñëpp di ñaanal ñi nga xam ne si yàlla def na tam ñu ngi seetaan yàlla di leen may wér lépp loo xam ne seen aajo la képp koo xam ne yàlla def nga nar ñëw si ñun di ñuy ñaanloo yàlla te li ñuy ñaanloo yàlla yàlla du ko saafara dañuy wax ne yàlla buñ ci lekk sa ñaar dërëm yàlla na yàlla xiir ci nga ñàkk woote képp koo xam ne itam yàlla xiir na la ci nga wooñu doyloo ñu ci loolu yàlla na yàlla may la ndam ci la nga doon séntu mbaa lu raw sax la nga séntu ci ñun ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di ñaanal yéen ñi nga xam ne itam a baaxee askan wi lii ci xam-xam nga xam ne si kenn ku ci nekk tey soo jógoon da nga xam fi ngay jaar soo jugee da nga xam kan laa war a dem wax dëgg ñu ngi leen ciy gërëm dina ñaan yàlla yal na yàlla yàggal seen taxawaay barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim